waaw téere bi de fu mu nii bu dee li ñu tax a daje tey ñaari téere la benn bi mi ngi jëm ci dunduk sëñ mag bi mu ngi tudd euh, Cheikh Ahmad Bamba Abdullahi wa Xadimu Rasuli Sëriñ Tuba ni mu nekkee jaamu yàlla ak nekk liggéeykatu yonent bi salallaahu alayhi wa alihi wa sallam lu téere boo xam ne ay gëstu la yu wuute ñeenti gëstu yoo xam ne dañ koo defoon lu jiitu doon ci waxtaan ci ay xaaj ci dund bi njëkk muy dem ci géej gi lu aju biir géej gi ak bi mu nekkee gànnaar ak bi mu nekkee résidence surveillée ci Sénégal diggante ci yéen ak njaaree yooyu lañ dajale nag gën ko xóotal gën koo faram-fàccee. ba génnee ko ci téere boobu nga xam ne mat na juróomi téeméer yi xët moom lañuy ñuy gaaral ni tey. Euh, tey gis nañ ne am na téere yu ay kàngam yàgg di bind lu waral tey euh, Rawdu Rayaaxiin ne moom faw mu génne téereem dafa am lu ngeen war a leeral wala. waaw xam nga dañuy mottali ñun dañuy sof ci li kàngam yooyu defal ndax kàngam yooyu li ci ëpp ku ne daa am wet goo bind ñii dañoo bind ay jaar jaaram ñi bind ci ay karamaatam ñi bind ci xasida yi. nga xam ne an wet gu ne daal ci lañ gën a jëme yitte ñun nag daayira bi di mbooloo moo xam ne yitte yëpp dañu bëgg boole xam ne téere bi lu tasaaroo woon ci téere mi ngi ci lu tasaaroo woon ci téere yooyu moom lañ boole ci téere kon xëy na li ko wut yeneen yi mooy téere yi ci des yu ci daa am genn wet gu mu gën a féete jàng wetug taarix kese kii jàng wetug xam-xamu sëriñ bi kese kii jàng ay cosaanam kese téere bi na ñëw boole yooyu yëpp waaw kon jàpp nañ ne ngir am delluwaay boo xam ne benn lay doon gëstukat bi mën cee dellu yooyu yëpp mu fekk ko ca dañuy gis ni amutoon ci ci jàbbi amutoon ci ci saxaab moo tax ñu def ko. waaw ñu gis ne tam ne téere bi euh, arab lañ ko bindee est-ce que mën nañ jort ne am na yeneen yu war a ñëwaat. fii may wax yéen ñu ngi koy tekki tubaab français te incha allah danañ ko tekkiwaat ci anglais kon arab bi moo njëkk ndax moo cosaan ndax sëriñ bi ñu ciy waxtaanee li mu bind lépp ci arab la ko bind waaye danañ ko teg ci làkk yi nga xam ne yëpp adduna soxla ko nag dañoo bëgg mu dem fépp ñu xam sëriñ bi. Euh, mun nañu xalaat tasaare bi Sénégal rek lay jëm wala ci àdduna wërngal képp. fépp la jëm ndax fañ ko doon moo la ci élément bari na fa la fa bàyyi tasaare ko ci mag bibliothèque Cheikh Mourou Bassir mi bu yàggul génn na fi ab tournée bu yaatu ci Europe ak euh, ci lenn ci réew yi Asie fu mu dem yóbbaale na ko ko daanaka dañoo bëgg mu tas fépp bibliothèque yu mag yëpp incha allah dalañ ko fa yóbbu. te tam am na yu jot dem sëriñ Mouhamadou Mountakha it gan ñi fi ñëw ñëpp kuy dem dan la ci jox nga yóbbaale. ñeenti xët la euh, ñaata page la fi mu toll nii. maanaam téere bi juróomi téeméeri xët mooy 500 pages juróomi téeméeri xët la. dunduk sëriñ bi njëkk muy dem ci géej gi comme ay cosaanam ba nim demee ci géej gi loolu benn partie la tukkib géej gi boppam la fa xew fu mu jaar yi ko sabab ci zahir ak ci bàttin yooyu mag ngi ca ba ñibbisi gi nekk gànnaar la xew gannaar ak la sabab gànnaar lépp mu ngi ci téere bi ak nekkam ci yéen ak njaareem ba dañu bisee Tuubaa ñu yokk ci nag ay mun xaqaat yenn yi. ay photo la yenn yi ay seere yoo xam ne boroom xam-xam yu bari yu mag ñoo ko seere ci moom yenn yi euh, ay desit yi bi mu amoon ci njëriñ ak tubaa nga xam ne téere yu mag mi ak nag bi mu bind téere yi muy dellu référence yi mu daan dellu dajal nañ ko fenn yi ñu xam yëpp ñu tudd leen. bi dana tax maanaam ñi nga xam ne dañ daan bind ci histoire sëriñ bi bu mu am ay njuumte ñuy rectifier waat ndax loolu loolu dana deñ moom lañ am yaakaar ndax jàpp nañ ne ñi nga xam ne ñoom ñàkk xam moo taxoon ñu doon bind loolu danañ ko saafara ndax wutal nañ leen delluwaay boo xam ne mën nañ caa dellu amma ki nga xam ne nag yeneen yéene la am moom itam bu bindatee am na lu ne ci wet gi luy wet dina lim bind bu wuuteeg loolu ñu xam ne wérul loolu mooy njëriñu téere